Feeling Dakar, le premier site people du Sénégal avec une équipe professionnelle et dynamique, composée des animateurs et animatrices avec des émissions people, mode, musique, politique et faits divers. mais mais am ñu gis euh, nga dugg ci ci ci fecc bi ñu naan ñu naan am fecc rek la mën. am ñëw ci way bi. ñu ne déet na waay am dugg ci taasu bi transhumance boobu moom lan moo ko waral. waaw. xam nga fecc bee doxul way bi daa doxul wala lan la. <laughs> xam nga ku xamoon fa sa wërsëg nekk da ngay dem rek mais dugal sa saak. loolu kenn waxatu ko. aar bu xasee nekk sa yaram aar la rek. d'accord te man sama yaay daraan wëy. Mhm. sama yaay daraan mhm. sama yaay bu ne der nga daw. ah barke ñoom yonent bi sama yaay bu ne der nga daw. ndeysaan waaw mu jalis ma ko nag. ma di topp di roy wëyam suñ ñëwaan ñun suñ kër suñ añaan ba pare nii sama tante sama yaay dañaan teg. ngoyaan di wëy xalam yi daw gàlle bi xumb maa ngi doon xale foofu noonu ngay dem di màggaaleeg loolu ba jël rythme wëy léegi may dem ba benn instant may dem di fecc bale di dem euh, day koo jalikundaa laa nekkoon troupe boobu Omar Thiam jëm bugum di dem ba mu jugi ma dugg ci taasu waaw kon kon yow xus lu nga de non si man dama gàddaam ci aar yow dama aaru ba caas est-ce <laughs> feeñ na ci yow. Mm. macha allah loo wax rek daa neex mm. loo wax rek daa neex macha allah mais mais mais mais euh, ban way nga ñu mën a wax boo xamante ni fàttaliku nga ko euh, parce que yaa ngi koy wax ci sa biir wax bi sa yaay daan way booba xale nga ban way nga nga ñu mën a may tuuti rek ci ci ci loo xamante ni sa yaay moo ko daan way. ngoyaan yenu leen oh, nañ na yenu leen. ndeysaan doo tey door maa doogoonto njëlawolo lay belaana yenu leen yenu leen naaj na bu jotee nga sàkk jamono jamono ja nga sàkk jamono ca aw sa yoon ba yenu leen yenu leen madame Barbosa yenu leen yenu leen doo xëy doo rañaa doo gonto njëloo loolay di laa la xam baat bi daa dee waaye. ndeysaan ah boo boo mënoon way dama daan way lu neex mais ak taasu bi xat gi. ni nga koy xëtee. dootoo sa baat du neex ko mais dama mës a mën a wëy. ndeysaan mi ngi noonu am la ba tey nag gis nga lépp di ci di ci aar way beeg fecc bi lépp di ci aar. mais pour la première fois. nga nga nga way nga way euh, ñu gis nga way mm-hmm. am am am way euh, loolu nag dañ ciy sant yàlla te xam ne fii rek lay xewee Feeling Dakar TV <laughs> kenn du Feeling Dakar TV déedéet déedéet du foofu waaw kay lépp euh, ki fi mu ngi fi dañu fi ku koy mm. jéem ci côté manoo ko doo ko ci koy moo koy Feeling Dakar TV da koy corote waxaatal loolu da koy corote ayca <laughs> mi ngi noonu ba tey fii la ñu bëggoon dugg tuuti ci showbiz bi mm. réellement parce que mm. dañoo gis Euh, ñu ci bari fi mu toll nii gars yi dañ leen di laal c'est-à-dire euh, maraboutage bi bari na euh, ñu ci bari sax ñoo génn donte aara ngi ci ñoom lan lan nga ñu mën a wax ci expérience boo xamante ni peut-être boo ko dundul itam gis nga ko ko dund maraboutage. ah nan da wax dëgg fa yàlla am daluma. Mhm. maa ngi sant yàlla. ndeysaan. defuma kenn loo xamante ni lu bon la. Mhm. te xanaa tamit kenn xalaatuma def dara lu bon. Mhm. ndax ndaw laa rek bu ñu yónni yàkkamti ma suma yaay man la yaakaar sama famille man lañ yaakaar mhm. te xanaa àdduna bi am na ñu bari ñoo xamante nii yaakaar nañ ma mhm. maa ngi leen di bégal ku ci dem ba war maa def loo xamante nii lu may lor la wax ma ko ma ñëw tëdd nga ray ma mhm. moom ko gënal mais mais gëm nga ni am na ci aar bi ah bon mënuma ko gëm waaw bu bu bu ndaw res waxal fii la fii lépp di xewee déggoo li ma la wax uh-huh. dëgg géeg yëpp fi la ma la wax mhm. gisoo mais mais bii jaaxal na ma parce que yëpp a gàtt moom mu gudd. waaw mais moo tax ma ne leen nii lañ def. style la wala lan dañoo wute. loolu la lii di wute. waaw ma def nii rek. nit ñi dañoo wute bii dafa gudd. waaw yii gàtt. nit ñëpp dañoo wute. ok nit ku nekk la nekk sa xol. Mhm. yaa ko xam. nit ku nekk la nga yéene nit. Mhm. yaa ko xam. waaye nit ku nekk. war ngaa war a mun a gëm ndogal bi. Mhm. war ngaa war a mun a gëm li nga xam ne ni moom la yàlla def. Mhm. ndaxte kat yàlla dafa jël cëram jox la. Mhm. jël sama cër jox ma. àdduna nii la may wër di wër di wër di wër di wër di wër ba jot. yow nga wër jote ko nga ne mukk la ma jot da nga koy foqar ñi ak la ma wër yépp. nit ku nekk la mu am ndeyam a ko liggéey ca kër baayam. te yaay bu nekk sonn. doom ji campagne bi xaj si rondalu ndayam dem daan doole liggéey ba am la muy am yow nga toog fee ne mukk dem ci sëriñ di ko liggéey pour tëqale ko loolu pour def ko nawtal ko pour mu dof man ki koy def man gëw ma ko daal man am naa ne man duma ko def mhm. te yaakaaruma ne nit war na mun a mun a añaane noonu man de ku ma ko bëgg a def dama lay ñaan fekk ma toog nga jàmm. Mhm. nga ray ma yàlla buñ la ko def yàlla nañ ci yàlla musal mhm. ndax nag euh, doom joo xamul lu ko ndayam bootee da ngaa mhm. war di maytu di def ci moom lu ñaaw euh, ñu ñëw tuuti nag euh, ci sa relation ak Wally Balago Seck parce que toog na ne yow danga koy daaneel lan mooy sa sa sa ak moom waa xam nga nopp garmi Wally dafa am nopp garmi d'accord waaw Wally dafa faaris la ok te yow amul ku bëgg a baax di nga bëgg ci jamonoom. <laughs> ndeysaan. ku bëgg baax ci jamono. Hmm. non di bëgg am ci jamonoom déggoo ma de waale Faramareen bi. ndeysaan. soxna ay dara. Mhm. bàyyi muumi. Mhm. góoru ndeela. bàyyi Muhammad jaagaay yaayam. coonay baayam laa gënër la. laa gënër la yow. luy lekk góor bu ko gisee. day ñaan créateur des mots. barke ñoom yu la. waale day jox naar wàllam ci cere jéeg béy ji moo tax naar di jël wàllam ci cere jéeg béy ji framaren boo doon jox naar wàllam ci cere jéeg béy ji. non naar sañ te ñëw di jël wàllam ci cere yeeg béy ji. mais est ce que bëggoo oto rek ay ah, parce que waale maye kat. waale def na ma lu ne. Ah. waali teral na ma fu ne. d' accord. waali saa bu la woowee bu ne tukk poosam bu la joxee nga waaru ba mel ni béy bu jur paase. waaw aca ñu ñu ñu ñëw ci ci sa digganteeg euh, Papa Ndiaye Coppet maa ngi la koy wax sànq ngeen jugee euh, nga jugee Kaolack mm-hmm. euh, Papa Ndiaye Coppet jugee Kaolack ngeen di def presque sa style sax dañ dañ ciy gis Pape Ndiaye Coppet mm-hmm. lan moo waral loolu style boo jël la wala wala wala yéen ñaar da ngeen am affinité mais Papa Ndiaye Coppet suma frère la ok suma frère la yaa xam jërë la ñuy wooyee yaayam jërë mi si mbay saa xëyaa nga lambaay. alaaji ba sàmb baaw man maa jaaxal parce que nag yow ñëpp nga bëgg a xaritool tamit. si. ah si mais loolu moo am. man lépp lu ma wax loolu moo am man maay man maay ñaaraapulo man ñëpp ma bëgg. gis nga du da ngay rafetal. non man ñëpp ma bëgg. ok léegi léegi yow Pape Ndiaye Coppet su ñëwoon pour ngeen def diwo di nga di nga nangu. sama frère la doo déglu ma wax la nuñ bokkee maa lu ngeen bokk. Iba Samb papa mook sama papa ñoo doon ànd guddeeg bëccëg. d'accord papa Ndiaye Samb maamam bi ñuy wax euh, maam naar mag la woon mais man rek la bëggoon ci àddunaam. Mhm. ba ma ñëwaan seen kër di wax mu ne kooku la am mu ne ko ma ne ma kaay ma ñëw mu dugg si néeg mu ne ma kaay del taasu lii. yaayu papa Ndiaye coppe daf ma oo ba ma ñëw mu ne ma taasu bi jox ma taasu. Mhm. ne ma dama bëgg nga taasu lii. Mhm. papa Ndiaye coppe taasukat la. mais yaayam daf may oo naa ma taasu lii. di ma jox ay xel. ma bokk seen famille. mais est-ce que yéen a ngi déggante instant bi bu baax. Hmm. bu baax. d'accord bu baax. mais mais am ñu ñëw tuuti ci ci actualité euh, ku ci mel ni euh, ñoom may si Ndiaye ñu leen di nuyu bu baax. ak euh, hmm. Ouzin Mbaye ñu doon def mars. jëm ci corona bi ngir ñu libéré leen ñoom géwël yi hmm. ñu mën di dellu ci seeni activité mais ñu gis ku tudd taasukat yi tudd am bongo te gisuñu am bongo lan moo waral loolu waaw man nag bon Euh, yëguma yëguma affaire bi franchement kenn mënta tudd taasu te tuddoo am bongo loolu mënul nekk fi laa dëkk yëgoo ko maanaam dañ laa woowul non franchement gisuma appelu kenn nag sama portable ñu ne ñu ngi def nangami ki nangam gisuma appelu kenn waaw te mhm. Kaolack la ma jógee Kaolack mhm. ñëw toog jàpp sama njàmbur tamit mhm. waaw mais mais Ouzin mbaay dañoo ah. dañoo dañoo gis ne moom mooy euh, moom moo jiite moom moo jiite association bi nga xamante ni moom la bongomaan yi di def te ku tudd bongomaan yi tudd la ci mm-hmm. euh, euh, da ngeen a da ngeen a sékulu relation bu mu lay woowee wala lan la exactement Ouzin Mbaye suma frère la suma xarit la mais franchement gisuma appel am mais lan moo waral woowu la tamit non mais mais am yow bëgg nga ku ñëw nga xaritoog moom te yow gars dañ lay tooñ rek déggoo ma ne man ñaaraa pulo laa picc mu mi ci géej gi du ma soppi melo ma ñëpp laa jox loolu. ah nag mais nag. Ousseyn Mbaye ñëpp dañ lay ragal de. Ousseyn Mbaye maa moom ñoo bokk groupe Ngéwél gi famille bu Ngone Ndiaye Ngéwél Saala Biga njaay Gambeen yi. Vienna barki démb dama joué ji ba ñëw dajeeg moom di jël oto Vienna moom ma andi ci otoom mba sama buntu kër. Mhm. Euh, Ousseyn Mbaye dañuy déggoo maa moom téléphone dañuy wax maa moom nice. Mhm. mais marché bi yëgu ma ko. kenn mhm. owu ma téléphone. dew ma. reste chez vous la ñu wax je reste chez mon vous. mais mais en tant que en tant que géwal en tant que bongoman. Hmm. nga dégg ñu ne yi euh, kat ñi ngi mars. Hmm. Euh, est-ce que euh, lan dañ la woowul moo tax demuloo wala da nga da da nga doon xaar pour ñu woo la lan moo waral nga demoo teewoo ci mars bi. man maa yor benn jikko boo xamante nii boo doon toj sama buntu kër sax boo ma woowul ay dittax yu ñorul la ma. te ñu toj sa buntu kër. boo doon ah, toj sama buntu kër laa wax di xar sama buntu kër di def mhm. dara. te boole woo ma ci du ma dem. d'accord. je suis quelqu'un yàllaa ko def. ah. je suis quelqu'un yàllaa ko def. quelqu'un waaw ma du ma quelqu'un. Uh-huh. génn ma ci quelqu'un. ok génn ma ci quelqu'un. mais mais mais dama dégg ñu ne yow ak Ouzin Mbaye jubóowu leen. Ouzin Mbaye <laughs> Ouzin Mbaye seen famille man lañ bëgg. mais est-ce que moom tamit ah mais. sama xarit la fa même nga wax. mais xanaa seetaanoo maak Ousseyn Mbaye suñu émission yi ñu bokk nag yow tamit. loolu kañ la. non man gis na mais lu toll ni géwal yuy mars seetaane gi bu leen jigéen ma xam na mbër déet déet yaa ñu a seytaane yow mi xaritoog man moom non parce que duñ la wax nga ne sama xarit man maa jógee Kaolack nangaan ñëw Dakar ma ne la di def lu defu di wax lu waxu jëf ñëpp loxo waaw est-ce que du looloo tax tamit nag taasukat yi bëgg laa ber fële ne parce que da ah ndax lan parce que da ngaa li ngay def ñoom ñu ñu ñu ragal nga ber leen de côté. non mais mais mais mais mais mais nit ki day gëm boppam nit ki looy def lu ne da ciy def pank lu amul pank booyee boo bàyyi ko. pank mooy lan. pank mooy da ngay def xadar. yow li nga teg fii dëgëral ba mu dëgër non fii lan moo la fi teg. Hmm? dëgër kecc. ah waa. pire. <laughs> du ma dëgër man. ok. ku ñemee na nga taxaw ku ragal da ngay daw ah ma ngi ñëw dal seen kaw ak Feeling Dakar waaw dëgg neexul Ousseyn Mbaye sama la Mbaye si sama frère la ñëpp la xarit laa xaritool ke Vénia sama la mais wax dëgg yàlla affaire bi yëguma ko mm-hmm. yëguma ko nag ok mais nga yaakaar ne jotul tamit nga nga nga nga wan leen ne la yaa fi ne quoi non non non non non non non. ah mais comme ñoom li ñuy def duñ la woo. nekkuma fi ku nekk fi nekk aar ak taarayam loo ci def def ko ci daar daar sinon bés dana ñëw mu gàddu kayam te naan la c'est trop tard. ok ku xew di nga xewi. ok ayca mi ngi noonu ba tey euh, am bongo la. Euh, mm. wala am taasu. Mm. Euh, mën a taasu lool nag. am bongo xam li muy def ci aar bi. Mm. macha allah mais ñu gis am nga génne benn single connexion rek. gisaatuñu beneen single. lu waral taxawaay bi. man maa ngi album. dégguma maa ngi def album six morceaux am dëgër nga finte non album six <laughs> yabaatewu leen sax <laughs> danga ciy taas ci way non lépp laa ci def yow ah xam nga mosoon si tuuti ci réseaux sociaux bi waaw mais dama ko dagg mu ngi ñëw mosolaat ñu ci tuuti dama ne réseaux sociaux problème Sénégal réseaux sociaux phénomène Sénégal nga ubbi sëb sit dugg ci sama compte daa di ma yëlëb ba ma set na yóbbu ma alaa in ñaata deri jigéen la fi yàq mënatu ko defar dama koy dagg. réseaux sociaux yi laa bëgg nga waxaat lim ba daa bëri. <laughs> am mayaat ma réseaux sociaux ni mu koy waxee nga mu di lay futti ba di la photo. ay bés ñëw réeroo war a am mbaa du ko publier. mais mais mais am yaa ngi wax léegi lu lu am solo muy euh, xale jigéen yi nga xamante ni dañuy dañuy futteeku ah ci seen i kanami copain euh, réeroo am ñu ñu ñu ñu publier leen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mi ngi ci réseaux sociaux yi ñu di ko gis. Mm. Euh, nga wax ci nag lu am solo. Mm. mais mais mais sa taxawaay ci loolu ak naka nga ko gisee. non mais mais mais mais mais nit warta yor jikkoom mala quoi. Mm-hmm. et puis yar dafa am important. d'accord yar dafa am important. gis nga nit ki nañ lay yare nga doon xale boo xamante ni am nga éducation copain mun ta ñàkk ndax xale yëpp am copain mhm. ku yor doom bu jigéen sax léegi dangay tiit ku yor doom bu jigéen sax léegi dangay tiit mhm. parce que tey jii nii mu ngi yor portable xew na toj na Sénégal mhm. dangay gis xale bu ndaw bu yor portable am whatsapp am mu ngi wéet moom di whatsapp ay whatsapp am yaayam man ta xam la muy whatsapp Mm-hmm. yaayam mun ta xam la muy wax ci portable am. Mm-hmm. mun na poser rendez ak copain am. wallaay wax ci portable am te yaay ji du xam. Mm-hmm. ci biir néeg sax mën na toog di filmer boppam di ko envoyé copain am. te yaay ji du ci yëg dara yaay ji tey jii ku yor sa vidéo tey jii lu mu la wax nga def ko. ku yor sa vidéo nga doon xale. nga jël vidéo envoyé ko sa copain mu yor vidéo bi. bu ko neexee mu ne la heure temps ñëwul sama kër. boo ñëwee këram heure temps mu def loolu loo xam ne nii bëggoo ko. Mhm. dañoo war a yaraat xale yi. Mhm. dañu war a xoolaat waaw dafa doy waar. Mhm. dafa doy waar. da ngay gis loo xamante mës sa am suñu réew ah ñun yii ñuy gis nii yëpp ci réseaux sociaux yi mësut am suñu ré mës mës ta <laughs> am euh, waaw loolu la man moom sama français moom Burkina Faso yen la quoi <laughs> c'est mon français Burkina Faso yen yaa ngi dégg mm-hmm. loolu yëpp amu fi woon mais depuis ba portable amee whatsapp am estati am ba léegi ngay mën a filmer sa bopp def ba léegi dafa mel ni rab daa ngelawu caliweer dugg nu ndeysaan loo mës a gis ngay gis mm-hmm. loo mës sa dégg ngay dégg mais mais am ni ngay waxee réseaux sociaux mayaat ma ko rek s'il te plaît réseaux sociaux <laughs> na naturel kañ kañ nga nar a génne album bi waa bon dañ ko dem grand théâtre peut waaw si projet bëgg naa ko dañ ko defoon ba paree man ak sama studio studio bleu hmm. mais ak euh, feebaru corona bi fi mu nekk nii kenn mënatut def dara fi mu ne kenn sañatut a def dara ku bëgg a def sax dangay nagam hmm. ndax euh, période bi fi mu ñu fekk nii hmm. corona bi ñu bàyyi woon lépp ba affaire yi passé ba ñu talaat ko ñu doog a génnee album bi mais xam naa ne du yàgg dara semaine bi rek dinaa génne réseaux sociaux bi damaa dégg français. ngeen ñu oh, koy prononcé. réseaux sociaux. <laughs> macha dinaa ko génne. Uh-huh. def clip bi. Uh-huh. jox ko fans yi. léegi nag bu ñu ba si kanam nag ma daal def album bi nag ñu toqantoo reetaan julli ci savouré hmm. crédité. ñëw hmm. waa Kaolack ñëw nga dem grand théâtre pourquoi pas. <laughs> mais mais mais ana xale bi xale bu jigéen bi xale bu xees bi. non non man na wax dëgg yàlla. aw ma gel quoi. dégguma je suis li nga wax. am bu ma kenn soxla am am toog ci réseaux sociaux yi. wax ne yaa ngi benn bàyyi leen may wax bul dugal sama xel affaire nobante yooyu pédophile ngeen bàyyi leen ma. waa déet eh eh. eh xoolee nga xam ne xale bu ndaw la je je rien bu ma yàq. <laughs> am nangu woo cee wax. non non non bu ma yàq ma yàq kon yéen ngi jàppante. waaw non juste bu ma yàq. ah yé bàyyiwuma nga wax. nii ngeen di def nag di jël affaire faranto affaire faranto gënatu di ko def suñu xel yi man baleen ma. xale nga xale bu ndaw la. <laughs> d'accord nee na bëggantewul te nee bi bàyyiwu ko. waaw ko déggandoo. en tout cas daal bu ma yàq. <laughs> mais album beeg mariage bi bu ban mooy jiitu. non mariage bi moom yàggul dara. léegi mu ñëw xam nga nag. cax dafa ñoom bu ñuul bi non man lu may doyee ku ñuul. <laughs> ah kon. moo tax nga jël poudre nii pour ma nob la. <laughs> Eh, man am naa mu ngi kër man xees samay <laughs> eh, allah eh, émission bi na laaw la ñu jox la rek nga wax sa mot de la fin. waaw maa ngi dégg ñépp bon di kontaan ci. Euh, émission bi nga xamante ni macha allah invité ngeen ma ko. Mhm. yéen waa Dakar. Mhm. Euh, euh, doonoon émission moo xam ne bu ma yàkkamti woon la. Mhm. may bëggee maman Choupi. suma yaay suma xarit. mu baax trop ak ñoom Khady Sarr Sarr mënu kumba jam kang sama jigéen sama xarit yéen ñëpp maa ngi leen di béggee mhm. ay ñoom Eva sama waalo bi bijou bijou mhm. maa ngi leen di béggee ñëpp ay ñoom seex Thiam mhm. ku ci nekk maa ngi lay béggee mi ngi noonu euh, dañuy tàggoo tàggatoo bu dul tàggoo di leen jox rendez-vous euh, beneen euh, numéro ci seen émission fii la fii ci Feeling Dakar TV ak seen animatrice la anti stress Sista Nana Dieng merci beneen yoon am bongo la woon jaajëf. Feeling Dakar, le premier site people du Sénégal avec une équipe professionnelle et dynamique composée des animateurs et animatrices avec des émissions people, mode, musique, politique et faits divers.